ahi taxalaa wa barakaatuhu ñu ñëwaat rek ci sunu réew mi nga xam amuñu lu dul moom mënuñu ko génn noo ngi àgg jamono joo xamante ni fu nu jublu ñu falak ñu daanaka amatul benn réew buy woote naan immigré ñëw leen fii France day falang Amérique day falang réew yëpp la ñuy falang muy le seigne Moussa Ka waxone fu nu jubluñu falang àddina yakna welang sering bi gessul xarnu bi tay ci suba dama def yobante bis bi Fatick ak Nogoy Ndour ci jigen sopalte bul wolu ma di len di wax ne docteur sopalte bul wolu ma di la wax ne journaliste sopalte bul wolu der bul wolu politicien sopalte bul wolu te justice yu réew justice ñu yore bi sopp leen wóolu leen sa diine soppal sa diine wóolul sa diine sam réew soppal sam réew wóolul sam réew gëmal sam réew may lancé appel rek ci ñaar ñi nga xam ne buñ sañoon bu ñu amoon la leen gënal Cheikh mun Mountakha Mbacké day continuer di takk maskam bii rek rek rek rek rek duñ ko yërëm mukk bis bu set ñu yokk alarme ci di alarme nit ñi te Seydi Aboubacar Sy Mansour nee na leen bu leen tiital askan wi mais journaliste yi dañoo dëgër bopp ak docteur yi tiital askan wi rek ci lañ nekk man Baye Mbacké Madina Lo ma leen di ñaan journaliste yi ak docteur yi wàccee leen seen bët ndànk yërëm leen ñu sarax leen amuñu fenn fu nu jëm li ngeen ñuy jox ci xabaar bu diiseer jotee dara du ci dëgg li ci ëpp ay ay nar la ci réew mi xam nañ ko bu baax ndax yéen dara du leen ci laal yéen a ngi am seeni salaire yéen a ngi am seeni docteur yéen a ngi am seeni avocat yéen a ngi am seen sécurité yéen a am seeni oto waxtu wu ngeen defee seen message ba nopp yéen journaliste yi yéen ak docteur yi ñu tàpp tàppal leen ni leen waaw leen góor fi nekk ni bëgguleen leen lu dul réew mi bankuwaat ci biir kër yi mënuloo génn fenn seen coow lu metti lii seen tiitaange jii ngeen di tiital askan wi ci corona bi am yéene yéen yéen journaliste ak docteur yi am ngeen yéene junniy néew di départ bi seen yéene yéen ndax Sénégal ndokk sa bopp la yéene ji ngeen am nag du am mukk mais bu dul dara rek ngeen yërëm Cheikh Mamadou Mountakha ba mu dalee takk masque ak léegi ngeen wàcce seeni bët li ngeen ñuy wax Podor fekk camp Saint-Louis 42 cas dara du ci dëgg Tamba 67 cas Ndiourbel 203 cas bis bu set ngeen di ko tuur ci sunu noppi teggi leen seen lamiñ wii ngeen di teg ci sunu noppi di ñu xoqtal ko tiital yéen corona ba muy sosu daa mel ni fii moo ko tax sosu maa ngi leen di jox nag benn xabaar bu neex bu leer boo xam ne ngeen nangu ko ngeen ñàkk koo nangu maanaam xabaar bi mooy jaas mi ngi bëgg a upp jaas te xam ngeen ne jaas bu fee si buru doy te baykat yi dañoo soxla jaas ji upp ndax day wowal gerte gi ñu mën koo bàcc mën koo jëri loolu nag di ngeen ci latawaale ba tuur askan wi waaye dama leen koy teel a wax muy xabaar bu neex ngir ko buñ ci eggee ñu xam ne narkat yaa ngi nii journaliste yi moytul leen seen valeur wàcc ci réew mi waaye yéen du lii lu tax du ngeen ñu wax xabaar yi dëgg lu tax du ngeen ñu jox wax xabaar yi dëgg lu tax ñee sonn ca kafe ya di fa dee du ngeen génne journal boobu wax ñu ko lu tax ñi wopp tëdd hôpital ami jafe-jafe boobu du mënuñoo jënd ordonnance lu tax du ngeen jox xabaar boobu réew mi crise bi fi nekk nga xam ne patron yaa ngi nii nanguwuñoo fay gardien yi fay bu baax nanguwuñoo fay mbindaan yi fay bu baax nanguwuñoo fay baara ñi ne yi ñett ñii ma tudd kenn ku ci nekk koo ci laaj liggéey na lu ma fukket mënta denc deux cent mille ku weer dee dix mille mil mille trente këgg na gën a jàmbaare quarante cinq mille cinquante mille soixante mille ba ci yéen yi am na ci ñu nekk ci correspondant yi ci région yi dërëm duñ ko jot noir la ñuy jot duñ jot bulletin salaire amuñu ay docteur amuñu xawma indemnité logement lañ ko xawma yi nekk fii ci Touba nag di kondong kondong gi ñooñu moom màggal yi dong lañ yaakaar fu ñu ci dem reportage bu ñuy dem tàggoo tàllal loxo yi ñu ñaan yewi leen ngëbal leen dara man ci bokk ci dëkk xam naa li ci ne su ma neexoon tey ku ci nekk bu ñu lay fuuf dara ma foto ko teg mais jëru ko mais il faut na ngeen sérieux bàyyi leen réew mi mu béréngu waay cinki leen doomu aadama yi ñu béréngu dañoo soxla béréngu te football baa ngi daw lépp a ngi dox football baa ngi daw théâtre kat yaa ngi dem am na ci koo xamante ni nangam DJ la DJ la damay bañ a suñu DJ samedi dimanche bu ne mu animé tinki leen réew mi waaye ngir jëmmi yàlla. ñun xamul ne jot na ñun ñu xamal leen ne jot na. ñoo ngi ci dixième mois ngeen fàttali ci biir kër yi di ñu sànni wax yoo xamante ni li ngeen bëggoon amu leen ko de comme lu mel ne bateau Joola ñu génne ay sëg yoo xam ne dañ naan corona yi ci fii lañ leen rob doo fi am te yéen journaliste yi jotal ngeen ay xabaar yu bëree bëri dara du ci dëgg diw corona moo ko faat diw dara du ci dëgg am na ñoo xam corona bi réyu leen yàlla di ko dogalam ak seenu magal ak seen jabet ak seen tension lu ci faatu ngeen sab ko il faut ngeen arrêté yéen a ngi sab ko nag Touba sapp ngeen Touba fi mu nekk nii sapp ngeen ñi màggal si sapp ngeen ñi ñi ñibbi man maa ngi nii fukki fan ak ñeent laa fas yéenee def pour wan leen sécurité na dara du xew te sax nag la ca gën a gàtt maa ngi koy ñaan ci daraje Cheikh Ibra di ko ñaan ci daraje Cheikh Moudou Fadal di ko ñaan ci daraje Cheikh Blaat bu fekkente ne catastrophe nan laa am na lépp tuuru sama kaw ma demal leen ngeen des yàlla ngeen am gàcce yéen journaliste yi li ngeen bëgg ubbi seen bàll gi di mbel mbel yi ginnaaw màggal corona nga xam ne si nii moom ngeen di cukkuru moom ngeen di ñamm ñam yi di jaddi jaddi bu ngeen di taal seen micro yi bu ngeen xëyee di déglu loolu rek ngeen di déglu yéen ak docteur yi ngeen lëkkaloo yàlla bu loolu am yéen a ngi jadd jadd di ñam ñam ñam di patax patax te xeral nañ leen maximum teraanga mais fi ne lu leen gënal mooy fii ba alsena talaata àll ngeen ubbi seen bàll yi ko tuubaa korona te maa ngi koy ñaan ci dara ji sëriñ Fallou bu catastrophe na ram yàlla na tuuru ci sama jëmm ji ma demal leen ngeen des parce que ngeen ñu trop fukki weer a ngi joxu leen ñu xabaar bu baax te dara lu metti amu fi lu dul ngeen jël réew mi tëmbal ko dimbali leen ñu lillahi wa rasul yi nga xam dañoo namoon réew mi namu bisu sëñ Tuubaa bi ñëw nañ ci bala ngeen a bàyyi yàqalaate leen yàqalaat leen mbel mbelee lu dul dara ba frontière yi tëj bu frontière yi tëjee bu ko defee ngeen ne wala yàlla bu ngeen wax wala yàlla na gàcce tuuru seen kaw yàlla bu yàlla nangu seen yéene muy journaliste muy docteur man de dama daan dégg ñaan jigéen soppal te bul wóolu waaye man de journaliste danaa leen sopp de waaye wóoluwuma leen lu ngeen ma wax du ma ko gëm docteur du ma ko wóolu mukk sopp naa ko ndax dama leen di soxla waaye dañ maa yàgg rayal sama taw bu góor ba ca choléra ba la faatu ñu tëral ko di ko xool ba mu faatu genn njàmbarte genn effort bu leen neexee duñ ko def jigéen bi tollu diggante ñi ciy faatu fii buñ la ko waxoon am na at moo xam ñaata liir lañ ne moo faatu Tamba ñu ne yàccee caaral bul dem mukk réanimation wala ngay dem urgence ñàkk kersa gi ngay fekk ci yi boo demee urgence naaja xëy si gi docteur yi def ñàkk gu ñu ñàkk respecté seen liggéey seen ambulance yi day faan duñ wax dara dañ naan pat waaw nah, seen ambulance da nga dem ci dëkk benn capital hôpital ba fa nekk ambulance bu pousse mu tàkk la lan moo leen intéressé ngeen fayeeku salaire denc di joggi ci kaw boppi nit ñi na ngeen ñu fi cëppeelal corona bi ci Touba gi bis bu ngeen yëkkatee alarme sosal na noonu waa Touba ci barke Seydina muhammad ci rabbi maa yasrahu yàlla na ngeen am gàcc yàlla na leen AVC këral yàlla na seeni lamiñ damm lii ban réew la ambulance bi ku muy jëli lii avant corona la te ba nëgë ni mi ngi am ci hôpital yoo xamante ni nii amuñu dara am na hôpital yoo xam boo fa demee ba nëgë ni ba nëgë ni laa la xamal siiso yaa koy jënd di sa bopp seringal bi ngay piqûre yaa koy jënd sa gants yaa koy jënd waxumal nag yecca des xam naa bu baax li nekk ci hôpital dëkk bii di Touba sama soxna entraîné na ñaari yoon hôpital bi dañ ko opéré mi am doom bu jigéen ak bu góor la ma fa daj man rek maa ko xam xuloo bu saf saf dagganteeg ñoom ba doyal ñi door maa jox cër ndax man sama lamiñ dëmmuwul te hôpital boobu ñun moodu moodu yi ñoo ko tabax mais ñeneen a fa sol ay tën yi weex di cekki cekki boo dikkee ñu la yuuxoo ko bële mboolem ku dëkk ci dëkk bi gisoo ci sa bopp kuñ fa jël bale bale bale ñu nit ñoo ko def nangu nangu ñoo jàng xam-xam ba sol bulu jël suñuy loxo yëpp suñuy ko te ndax fii nii mat la bul foo seeni ku jël sa malade yóbbu jëm say ba nga yóbbaale cinq cent mille amuñu ci lu bañ amuñu ci ñu ruus réew mi daanu ci pax ngeen war koo génnee yéen docteur yéen a war a génnee réew mi ci pax mi tab yéen journaliste yi di mbel mbeli fii li xew ci politique dooxu leen ci dara barki démb bi rassemblement bu gën a mag ci àddina bi amee fii ci responsable ñemewu leen ci mbiqi da ngeen ci ne pat bu leen ñu yeb bu leen jot sunu xol bu leen jot sunu dënn gàcc gu ne yàgg ngeen ko jël jëme ko ci sëñ Touba yéenee mujj échec ba ñuy embarqué sëñ Touba pour mu dem Mauritanie yaakaaroon ne bu ñu demee Mauritanie diine ja fa lay faye foofa la diine ja jollee ba mu am fa ñetti soxna kenn ki mooy way juru Serigne Abdoulahi borom dër bi kenn ki mooy way juru Serigne Ibrahima Serigne Ibrahima Mbacke kenn ki mooy way juru soxna Aminata Mbacke gàcc bu ngeen riir jëmale ko sëñ Tuubaa ci seen kaw lay këpp lu wér nag laa leen wax ngi sàkku di ñaan fu mu war a jàll na fa jàll ba ci waa ahlu Tuubaa ca kanam yéen waa ahlu tubaa ci kanam murit yëpp yaakaar nañ leen ngalawaay fañ leen di séenu bu leen fa dem ngalawaay ñoo ngi xool tawfiixul hadi la leen fa kastaloon moytu leen ko la fa kastal matlabul fawseyni moytu leen ko bu leen damu bu leen naagu te it ngeen yëg ne ñi daan xëcc yoon wi muy daanu nga xam ne lu fay taxawal ñu xëcc la nga toog ñooñu ñoo daw jëm si ci yéen suy leen ak million ngeen bind ko ci internet bi fekk ñooñu dañoo bëgg a gañe am na ci ñoo xam marché bu ñu gañe duñ ko defar defar bu baax il faut ngeen ubbi seen i bët ci xool man nag lu ma ci seen muy yàq danaa leen ko wax lu ma ci seen muy defar danaa leen ko wax ndax ndam rek laa leen bëggal samay kàddu nag du neex mais dëgg rek lay doon lu ma ci fekkit ma jël ma leen di yëgal ne ay bukki ak i till daw nañ wut si leen démb nag waxtaan naa ci ak benn mbokku taalibi bi mu ne ma sëñ Modou Mamounum sëñ Fallou mi ngi ci biir la sama xel gën a dal ndax moom day la ñuy génnee ci ndox mi ba mu ko xalaatee yàgg na bi ma déggee mi ngi ci biir sama xel dal na sëriñ Cheikh Aliou sama mag la yaayam ak sama yaay ñoo bokk bàyyi xëcc leen ko mu dikk xam-xamam boobu ah warul woon a summi warul woon a découragé sëñ Tuba doo ko lëggéeyal ay nit di la mbéw mbéw tax nga daal di rocc ko dem toog ne boo toogee doo def lu gën lëggéeyal sëñ Tuba sëñ Cheikh yi jëli leen ko maa war rahmati jëli leen ko bañ ba ko ba ko turandoom di financé ñu koy jàppale mu ami xam-xam ñu boole ko sàmba yàlla ndox mi di ci war ne ku dikk da ko cee war a fekk ku dem da ko cee war a ba la sëñ Tuubaa waxoon suñu mën Mustafaa rek ci jumaa ji lu leer jumaa jaa ngoogu bu ngeen ko defee yàlla dana ko def bu ngeen ko defut yàlla dana yabal ay ay ba ci ay malaaka ñu defar kon nag nekk ku dikk na la ci fekk ku dem na la ci baax liggéey ngoo boo xam ku ci feeñ da nga feeñ ba faw ku ci nëbbu da nga nëbbu ba faw ba nëgë am na ñoo xam seeni jumaa munta noppi ndax dañ cee nanguwul feeñ ba nëgë am na ñoo xam seeni jumaa munta yegg munta sotti mënuñu koo ubbi lu tax dañoo mus nangoo feeñ ci jumaay Touba mais jumaay Touba nag leen woon na ndoxo ko doon liggéey ndox mi ku ci nangu te feeñ man xawma la ndox mi ku nar gàllankoor di ko ci teg man xawma la ndox mi ku iñaane mu sotti ndox mi koo xamante ni danga bëgg ku ci Touba di mar man kooku xawma la ñooñu war nañ leen a tappar ñi ba màggalub déwén loolu ñu naan mar naan marut naan tuubaa ngi wala ngaan man dama bëgg opération boo xam ne day tegu ci dëgg tuubaa ca kanam mar naan marut naan ndox maa ngi wala ngaan tuubaa ca kanam mar naan marut naan ubbil ñu ubbi ndox maa ngi walla ngaan nekk nag ndox mu set économie bi da ciy jóg ndax kon tuubaa danañ bay carotte danañ bay salade danañ bay naanaan danañ bay chou joxute économie bi mbëkk mii day daal di wàññeeku mais dëkk ngi di boo xam mënoo fexe fexe ba watt garab lekk benn meññet abu fi lépp dafay dugg hmm? dar rahman ñu dem dar rahman sëñ Cheikh dar rahman yàlla na yàlla yokk leeru ñu fa ñu ko ci mbay ma dër ba ñu jëmale suñ itti ci li ñuy consommer local Touba ca kanam teg ca kanam taxaw ca duutu ngeen soxla kenn versé mille francs da ngeen naan Touba ca kanam bi ubbi na projet tool acca yow mi daan verser 1000 ñewal ngay xëy xëy ñu lay fay 10000 par jour karim ji noppé dafa wax ni fu ngeen yam rek da leen na neex mbir ngi ni mo xamanteni fu ngeen yam ci adina da leen na neex ku leen sañalati ci yeen la bu ngeen boolee seen bop boolee seen ñak def ñi ngeen def jumaay ndereen amul projet amul carte amul wër di wëndelu di laaj ñi ngeen ko andando fessel seen i mbagg ba defar ko ba teg caabi bi ni li ci seen kanam lepp mi ngi noonu sëñ tuba tegal tek nañ ci woon ñun ñoko tek na le fuñ ko teg Touba ci kanam tey jii bëggoon naa tey jii ñoom ñu ubbi usine boo xam ne day récupérer plastique yi sax placé woon benn jëwri na ko xoolal yi plastique matu deux minutes ma dajale mbuus mi sa jamono toll na fa xam ñun dañoo soxla basangi plastique ak i tarmus ak i satala hmm? soxla ay dàlli plastique soxla ay gants soxla ay grimbul war nañu opération récupérer plastique comme ne ne mu amee ci jam ñaajo nga xam ne ku yóbbu ñu fay la il faut ñooy développer suñu bopp suñu réew te gàcce gii ñuy def ndaw ñi di bëkk di dem dañ cee war a génn xam nga ne bërki démb nombre bii seen xol neexut gisatuñ seen bopp ci réew mi te ay milliards ngi ci réew mi ñu koy fasal fasale ak a foyee te indi grande industrie Touba ca kanam mbay mbay mu mbay mbay mu dëgër Touba ca kanam industrie bu mag Touba ca kanam fu ngeen yem dalee na neex bu ngeen yokkatee du ngeen dem man nag wax dëgg yàlla démb bi ma déggee na sëñ Modou Mamoun moom Cheikh Mamadou Fadal mi ngi ci biir sëñ Modou Mamoun mook sëñ Modou bu si àndoon na ñëw Kataaña ak soxna nekkaañ Kanji ak sëriñ Cheikh Mbacke moom soxna Awa Gadiaga am na photo yoo xamante ni maa ngi moom ba léegi màggal daaw gii bi mu ñëwee kër seen bi sama moom sëñ bu dama ko ko fàttali mu daal ni ma loolu de ak léegi nangami at la ku dëgg ku yéeme ku bëgg sëñ Fallou ku sëñ Fallou duppee sëñ Modou Mamoun Darou Salaam billaay wallaay taala sama message bi yàlla na yaatu ba journaliste yi teggi seen tànk dañ noo sapp fi nekk nii dañ noo sapp billahi dañ noo sapp dañ noo sapp buñ sañoon ñu coowati waaye mënuluñ sëñ bi dara ndax Cheikh Ahmadou Bamba su ku ko mënal dara pexe sotti sëñ Abdoulaye Mbacke nee na tuba bi jéemal nañ ci wéet gone ba seeni pexe sot moom lu mu leen defal jéggal naa leen moo tax bi mbaxandike mu jéggal ko kooku du asar ku jéggal ab jàmbur doo jéggal doo toppante sa dara dafay di mbaxaan ay sëtam a ngi nii tey di damu di damu waaw xam nañ ne sëñ tuba mooy kenn te kat njëbbal googee doon na am tolox tolox ndax ba mu génnee àddina sëñ fallu mbàkkee ko naroon a jullee bañ tegee ba mu nar a dem ci kanam sàppe sa sëñ Cheikh Gaynde Fatma xëcc ko xëcc sëñ Fallou mu ñëw ci sàppe si sëñ Cheikh Gaynde Fatma dox ca kanam jullee ko coow li bari lool de ba pënd ni xanaa li ma def keroog day jaaxal na ñu ne ko Mbàkke Bàlla loolu mooy coow ci dëkk bi ndax ku toll ni Cheikh Modou Fadal nekkal fi sëñ Touba ak sëñ Fallou ni mu demee di jullee mbaaxaan mu mel ni xew da nga ko wóoluwut ci mbaaxaan loolu kay jaaxal na ma mu muñ muñam googee mu ne leen dama doon soowe mbaaxaan de ndax sëñ Fallou Mbacké bu jiitee mbaaxaan mën naa am mën naa am mën naa am balaa sëlmal xelam dem ci mbaaxaan fi mu jaar ak sëñ Touba te boobaa sëñ Fallou Mbacké bëgg na sëñ Touba bëggoon xol bi day fudd te kon duutuñu jégal mbaaxaan li ma def xam naa ko sëñ Fallou xam na li mu def ndax sëñ Fallou àgg na ci boroomam foo xam lu mu xalaat rek yàlla def ko nekkatu lu mu wax ci wala mais lu xel mi xalaat rek yàlla def seetal loolu seetal loolu seetal loolu nit ki liggéeyum ndey dana wàllu nit ki ba ci buntu kuusu bàmmeel looloo tax ñu naan suñu borom bu dana génne nit ki ci lëndëm jëmale ko ci leer waaw dana génne nit ki ci tuskare yóbbu ko ci kaw kaw dana génne nit ki ci dee yóbbu ko ci dund mbaaxaan la muy jàkkaarloog sëñ bi yëpp la ko sëñ Tuubaa di ñaanal yëpp la muy nangu nangu ñëbbal ga ba jullee jotee moo tax ñu daan taamu jullee jullee du qu'importe rek ne war ci sa kanam jullee ndax xam da nga gis wàll yu xaqan jullee nit du tax ñu jéggal ko ndax diir bi mu ko kii yàlla bu mu fàttali ko ay ñaaw téefam moo tax bu dee ku mel ni man dama naan man de yàlla na ma ab Baay Faal jullee ndax xëy na bari na ay ñaaw téef ak tolof tolof ndax sëñ Cheikh Gaynde Fatma noonu la soowee mbaaxaan moo tax mbaaxaan mënta fay yaayam mënta fay sëñ Cheikh Gaynde Fatma ndax li wértuwoor bu sëñ Fallu Mbàkke kàbbare balaa sëlmal bu xel mi nekkee ci mbaaxaan fi mu jaar ak sëñ Tuubaa sëñ Fallu amul sago ci sëñ xol bi day rëg-rëgi te bu rëg-rëgee te jullee moom jéggal rek la moo Cheikh Gaynde Fatma wax def ko sëñ Fallu xam yéen ñi xamul nag kon wax jàngoogu su ngeen dem yóbbu leen ko fa yërmande rek laa soxlaal sama nijaay ji te mbaaxam moomu kat ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma mi bokk ci soxna Fatma Cuub sëñ Tuubaa bu fa yebalee sëñ Modou Moustapha ngir mu jël soxna Fatma kat la Lat Joor waxoon sëñ Tuubaa rek te Mbàkke Kajoor waaw ji maanaam dink naa la sama bopp ak sama njaboot sama kaddu raw na ma ah sëñ Tuubaa kaddoom da koo raw rek ci tukki bi baax kenn mënu ko woon a dem moo tax Lat Joor ne ko dénk naa la sama bopp ak sama njaboot looloo tax suñ mu fa suñ Tuubaa yebal ko soxna Fatma mu dugg fa dugg fa dugg fa ba fi mu ne nii njóobeen gi moom kenn ëppalewu leen ci Bàmba ji wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu